alaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida alhamdu wa shukru mahalillahi ala nabi waladi hablillahi barke Cheikh al Khadim bokk julli yi bokk taalibe yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di sàkku ñaan ci ñëpp rek ñu ñaanal Cheikh Modou Mountakha mu gën fee yàgg te gën a wér kasaalika noonu lañ koy ñaanale sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda waaye di ñaanal itam jëwriñu liggéey mu bii di Muxaddamatul Xidma di sëñ Xaafiya Buso di sàkku ci taalib yëpp ñu ñaanal ko ndax taxawaay taxawaayam rafet na ndax lii mu def nii yitte ju kawe rek moo ko waral mu dajale fi bokki taalibe yi di leen bernde loolu day wane ne rek ak yëg la ndax yitte la kon ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm waaye di sant bu baax a baax itam bokkam yu baax yii ànd ak moom liggéey mu Muxaddamatul ma ñii di ay rakkam ñii di ay doomam ñii di ay jarbaatam ñii di ay taalibeem ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax a baax xam naa foofu dinaa fi taxaw tuuti sëñ Abdou Lahad mu mel ne yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla dogal ngeen jiite liggéey bii di Muxaddamatul ma faw danañ leen sant noonu waa diaspora bi gërëm leen ndax liggéey bi du tàggee mukk ci yéen ndax lu guddi guddi wala lu naaj naaj wala lu teel teel saa bu nu amee yitte suñ leen wooyee dañu leen jot te moo ne bari na ñuy liggéey sëñ Tuubaa ñoo xam ne day ñu bokk pas-pas la ñuy doon di liggéey waaye ca biir mbooloo ma am na ñoo xam ne dañuy gàll dañuy gàllankoor ña ca des yéen nag bokku leen ci loolu ndax li ñu bëgg a liggéey sëñ su ngeen ñu ko yombalul rek liggéey bi yéene ji dana am waaye jëf ji du mën a nekk kon loolu lu ñu koy seedeel àdduna bépp ñu ñuy dégg di leen ci ñaanal nag ngeen yàgg cee sax te yàgg cee daje ngërëmul sëñ bi di sant bu baax a baax itam Seydina Hassan sëñ Assane Diop moom mi nga xam ne nii mooy jëwriñu diaspora bi moom it kasaalika naka noonu li ma seede ci yéen rek lay seede ci moom moom mën naa ne li ñuy jokkoo ci téléphone bari na lool di sottandi ay xalaat yitteem jëpp itam mu jëmee ko ci liggéey sañ tubaab bi kon sëñ Assane loolu ñu koy seede fii nga xam ne nii fii la seedee jëf yi mu ci kanam sëñ kanam sëñ Afia di sant yàlla bu baax nag bokk yi mu xam ne ni ko fi sëñ Abdou Lahad waxee sànq liggéey yi bari na jumaa ji bu ñu déggee lim bi ñu lim ne moo fi dajee ci xaalis ci àddiya ak li yaakaar sëñ Tuubaa ci àdduna bi ni ko sëñ Assane waxee doo xeebal kenn pas-pasam wala pastéefam waaye war nañoo fidliwaat suñuy laxasaay nag te xam ne kat benn liggéey bu gën jumaa ji amul ci kaw suuf ndax Cheikh Abdou Lahad waxoon na ne di def dara yaakaar ne baax na mu wóor la ne baax naa ko gën te ku ne xam ne ne jumaa ji ku fiy def sa ñàq nag làmbatu woo def nga ko fu mat a def kon bokki taalibe yi may seetaan ak yéen ñi may dégg ak mboolem ku ne ci salle bii na nga fexe jëf ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bii di jumaa ji ndax mbooloo nag dafa bari ay ay ay ay façon ngi doomu aadama waaye li wér sa daal mooy jumaay sëñ tubaa ji murit bu ne war ngaa jéem a natt yow sam koom jëm koo dugal ci sëriñ bi ba xam sëñ bi dana la ko nangoo la ndax sëñ bi nag ñiy jël seen alal di ko dugal ci moom da koy tànn nag da koy tànn tànn googu nag moo war a tax kenn ku ne jéem a natt sa bopp sa diggal ak sëñ Tuubaa ba xam yow sëñ bi dana la nangool yow sas koom dugg ci moom moomam déet bu la ko nangul rek xamal ne yow bokk nga ci liggéey kon loolu maa ngi ciy soññ bokk ci taalibe yëpp rawatina waa adduna bi di jàllale it kàddu yi waa Angleterre euh, sëñ Abdou Lahad jëmu jii ma dendal di sëñ Abdou ki Mbaye moom damay wax ne maa ngi moom ñaari tuur lañ waaye jënd jëmu lañ ndax fu ma nekk mi ngi sama wet fu mu nekk maa ngi ci wetam dafa may wax ne ma liggéey sëñ Tuubaa bii sëñ Fàllu loo ci xalaat rek jëlu sax nga may woo bu bu dee lu ñuy dugg dugal ma ci bu dee lu ñuy jëf ma ci kon maa ngi koy yéen ñëpp rawatina ak añu jumaa jii nga xam ne tuddoon nañ ko foofu itam sëñ lu war nañoo xam ne jamono soppeeku na nag bu baax fi mu ne te li ñu nattoon ne mooy añu jumaa ji di fukki junne juróom-benn di quatre-vingt mille jortu naa ne waras na ko mën a yokk yokk yi nag sëñ Abdou xalaat leen bu ñu jógee fii yéen ñi nga xam ne yéen a yor liggéey bi lu mu gën a baaxee ngeen defee ko noonu ndax taalibe yi kat ñëpp nag gëm naa ne ba yëkkatee seen alal jox ko sëñ Tuubaa lañ ci génnoon kon yéen yéen xalaat lu mu gën a baaxee ngeen di ko jëfe noonu su boobaa dañ leen fekk si di sant bu baax a baax itam sëñ Baye Fall Faye ca Espagne moom euh, sànq sëñ asan def na lu am solo ndax euh, man bari na kàddu yoo xam ne su ma leen déggee danaa xam kàddu gi waaye jëmm yi nag xaw leen woon waaye tey jii bari na ci jëmm yoo xam ne ni xamante na ma ak ñoom teñ bokk di daje saa bu ne ci liggéey sëñ Tuubaa bi kon daje bi loolu rek am na ci solo kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen xaman na it euh, daaw bi ñu fi teewee sëñ Abdou Lahad mm-hmm. am na engagement bu ñu fi jëloon. Euh, maa ngi jéggul sax nag ci kàddu gi ndax bañ koy jëlee itam booba waxtaanu murit la woon rek waaye nag dañ koo bëggoon a togg ba mu ñor ñu doog koo yekk waaye ca biir loola nag yàlla dogal euh, mu siiwee ci jataay bii muy ambulance bi ñu doon wax ambulance bi nag sëñ Abdou Lahad mii moom sëñ Thierno ñu ngi la ciy sant bu baax Bousso ndax ambulance bi maanaam mën naa ne fii may waxee yéen bu doon fukk juróom-ñeent yi moom mat na bi ñuy bëgg a agsi ci màggal gi nag mu xaw a xat waaye gëm naa ne fi ne xaalis bi ko jënd moom yor ko ba noppi ba am na sëñ Abdou Lahad mii ku mu waxaloon Italie ba mu yónnee ma ay photo photo yaa ngi man ñu xool ba ma am ku ma yebal mu dem xooli ambulance bi fa mu nekk ba juboo woon ci prix waaye bañ demee ba ci biir dañoo xool ne ambulance bi wax dëgg yàlla war nañoo mën a am bu ko gën a bu ko gën a bees ndax kilomètres yi xaw naa bari ñu ne nag gannaaw dañuy jëndal sëriñ bi ambulance sëñ Touba suñu ko mënoon day te suñu yitte mate ko wala suñu koom bu bees teq la ñuy jënd indil ko sëñ ndax sëñ bi kenn du ko jox des waaye nag jamono moo laaj loolu kon na ñëpp xam ne nañu ko engagé woon fas nañ yéene defee ko noonu sëñ nag nag ma jégal sëñ bi daa kii mbay waaye bi ñu ko waxee fii daaw ñu am ñu jaayante bi ñu demee Angleterre nun waa London ñoo wax ne ñun ñoo koy jënd waa daayira wa kaana xan te it xaalis bi moom yemb na ba noppi la jay des nag bu ñu delloo jàmm insha allah bu ñu gàmmoo ba nopp ba dellu danañ fas yéene bu soobee sëñ Tuubaa bu lépp jàppandee danañ ko lijjanti ba lépp sotti sëñ Abdoulahad ñu teg ko ci loxo yuñ ko war a teg mu agsi bu ñëwee nekkal fi señ bi ndax bëgguñoo jënd loo xam ne suñu ko jëndee mu agsi fii ñu jënd ko xaalis bu bari mu dox ñaari weer wala ñetti weer di taxaw ndax bañ koo gisee ba bu koo lijjanti ci biir taalibe daa am koo xam ne daa wax ne ah ambulance bi dey kilomètres yi bari na waaye nag dañ dañuy wax ne balaa moom miñ ngi ci làmmiñ te booba bu ñu fekkoon ne dëgërlu nañ maanaam ngir bëgg mu gaaw a agsi bañ jënd ko bu ñëwee bu bu doxee benn fan képp taxaw danañ ne waxoon nañ ko ñi bëgg nag lu ñuy def lu ne ñun mbooloo ma nekk daayira Wakana Haqqan Touba London Angleterre ñu dajaloo muy wenn say ñu juboo ci ñu jënd ambulance bi indi ko fii def ko addee Serigne Touba leneen loo xam ne itam engagé woon nañ ko fii itam wax ko ne dañ ko war a wut itam su boobaa bu sawee Serigne Touba danañ ko fas yéene te fii nag gëm naa lépp lu ñu fi lu ñu fi yéenee jëfal sëñ Tuubaa dana mën a nekk ndax sëñ Afi man biir na ma ne bu nu ñaanee sëñ tubaa ñaan gi dana ñu dal ndax mboolem lu ñu fi engagé bu ñu koy engagé du sama jëmm dong du jëmm Abdou Akim Mbaye waaye dañuy xam ne sëñ Touba moom sëñ Abdou nee woon na liggéeyal sëñ tubaa moom duñ ci dara nee na boo ko fasoo rek bu yéene ci sellee la jëlee sëñ Touba moo koy àggale kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan seen yàlla na yàgg yàlla na wér wax dëgg yàlla suñu xol seet na guyu ci ndax gàllankoor leen benn yoon ci liggéey bi sëñ loolu nag seen yitte la tey may wax bokk taalibe bi beneen boo xam ne dama ko ci sof rek gis ngeen ñun ñii di tuddoo sëñ tubaa na ci àll bi ñoom ñii ne fii nga xam ne ñoom lépp sëñ Touba lañ féete sëñ Touba fépp nag ñoom itam ndax bàyyi seen yitte di ay ndaw adduna nekk seen kanam ñu yori kër yoru njaboot yoru dépasse waaye seen yitte jëpp ñu jëmee ko ci sëñ Touba bu ñu xëyee xëy sëñ bi xëyee bu ñu gontoo góorlu ci sëñ bi te moo ne day mënoon naa neex sëñ Mountakha bu ko neexoon mu ne Mouride ay jumaa ji nañ koy ay ay lool bu ñuy defee weer dem ñii ñëw def weer dem loolu lépp léegi amu ci woyofal gi ci am nag mooy nun ñi yaakaar sëñ tubaa nañ leen am fulla am fayda am jom jàpp ci liggéeyam sëñ Tuubaa bii te xam ne kat ku jëf ku ne sa bopp ngay jëfal li gën a am solo nag mooy kenn ku ne ci nun yëg nga bu wér loola sañ tubaa defal sa yow mënoo yëkkat sa wax ne lii maa ko defal sañ Tuubaa kon nañ leen góorgóorlu fet li laxasaay yi dafa séenee nag doon wenn say ndax mbooloo kat mooy doole bu ñu àndandoo rek bu ñu jëfee sëñ Tuubaa danañu nangul jëf ji ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp nag di waxit ne añu jumaa ji itam sëñ Abdou Akim jërëjëf daaw euh, bi ñu jógee fii gise nañu ak Seex Mouhamadou Mountakha yàlla fi gën a yàgg te gën a wér sëñ Abdou Lahad mii moom sëñ Thierno sëñ Abdou Lahad Bousso moom maam Assa ak sëñ Assane Diop ak sëñ Abdou Lahad Moutalib ak sëñ Abdou Akim Mbaye mii ak ñi ñi nga xam ne xañ na xañ na fàtte naa la ñu teew ci kanam Seex Mouhamadou Mountakha booba itam lañ ko gaaraloon mooy junniy murit lañ bëgg junniy junni yëreeg bañ ko waxee mel na ne lim bañ amoon ba ñu dem Cheikh Mouhamadou Mountakha yokk na yaakaar naa lu ñu toll yokkaat na ca kon nag képp ku ne ci salle bii di dégg suñu kàddu wala nga ñëw gis junni yi murid yooyu fekk ca fexe cee bokk bàyyi wuñ ko nag fukki junne juróom benn la ñuy laaj ku ko man te yàlla ak sëñ Tuubaa tax nga def ko ndax kat ñii liggéeyal sëñ Tuubaa nga di leen añal di leen jox ñuy lekk di naan loolu liggéey gënu ko xit ma gënu ko màgg bokk yi kon dañ leen ci jàpp te sax ci te mën nañ ko nag mën nañ ko am na loo xam ne ni ñun ñëpp mën nañ ko ku ko doon tàllal sa loxo di ko ñaan sax dañ la ko may maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu ci kàddu yi lu ci dënk nag matadik doomu adama la waaye lu ci jub rek coobare suñu borom la wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, bi may soññeewaat sax mooy waa UK mooy waa Angleterre yéen ñi nga xam ne yéen a ngi dégg sama kàddu ñoo ngi leen di tàllal suñu loxo di leen woo ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bii di Muxaddamatul Xidma sëñ Abdou Lahad bu sa mii kat du ma ne wàcc na waaye bi mu mujjee Angleterre maa ko wax ne ko sëñ Abdou Lahad dëkk boo dem te daayirab sëñ Tuubaa ne fa waxal ak jëwriñu liggéey ba mu samp jenn ndaw loo xam ne nii ca daayira bi la koy samp muy liggéeyal mu xaddimaatu ma lépp lu jógee te fii wàcc foofa ñu àndandoo jëf ci liggéey bi def na ca kem kàttanam nag ba tax na ren nag liñ bëgg mooy daaw indi woon nañ fi addee joo xam ne dañ ko jox ci tur UK bépp ren nag defuñu noonu li tax mooy dañoo bëgg ñëpp di royante di jëf sëñ Abdou Akim Mbaye mii ne kuréel yi Barayton indi na fi ñaar fukki junni man mii di wax ak yéen daayira Wakana Haqqan Touba London ci jëruñu Abdoulaye Dieng Fawzeni indi nañ fi 500000 xeeb xeebuñu ko nag waaye fas na war nañoo fas yéene yéene nag bu déwénee mu yokk insha rabbi yi alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik alayhi barke borom Touba maa ngi siyaari mbokki taalibe yëpp xam naa kàddu gi moom genn la te mooy kàddu yi nga xam ni sunu jëwrin jii toog Cheikh Madul Fadili Diop nga xam ni moo représenté mu xaddimaatul ma ci yokkee gépp su yëkkatee ay kàddu rek mooy kàddu gi nga xam ni mooy kàddu mooy kàddu gi xam naa ni xër ak kàddu yu gàtt rek yoo xam ni sama ma ci yóbbe waaye samay kàddu du kàddu goo xam ni kàddu jël kàddu la ndax ni mu ko waxee ñaari ñaari jënd jëmm la jenn jëmm la moom sax dafa may wax ne ñaar ñuy wër garab lan man ne ko loolu du ma ko nangu bàyyil ma topp rek ci sa ginnaaw te noonu la ñu àndee mu wax itam ne toujours ñuy wax maak moom ne ko ñun li anglais di wax mooy commerce mooy business ma ne ko ñun dañoo am business bu rëy ñun waaye suñu business rek génnul Serigne Touba ndax nit nit ñiy waxtaanee ci su ma jëndee lii am calee su ma defee affaire bi am calale ñun toujours suñu waxtaan ak suñuy xalaat lépp dañ koy joyal ci nuñ def ba taalibey Serigne Touba yëpp àndandoo ci liggéeyu Serigne Touba bi rawate nag mu xàddimaatul xidma bii xam naa di sant bu baax nag euh, Serigne Afia Bousso di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér gi yaram ak njabootam gu tedd gii nga xamante ni bii ñoo nekk ci di ñu teete ci liggéey bi Serigne Abdou Lahad yii ah di leen sant bu baax a baax ci li nga xam ni wan nañ ko seen jëmm ba toujours damay xalaat ci samay xalaat. ma ne man de xisa bi ma mësoon a dégg ci seex Mouhamadul Moustapha ak Serigne Seex Gaynde Fatma biñ leen yabalee ci maam Thierno ba mu natt leen lépp mat mu ne leen lépp mat na waaye na ngeen fexe ba xeymee mu ci taalibe yi kon Seex Abdul Ahad yii xeymee mu nan ci ñun te xeymee mu googee dafa dëggu ci suñuy xol kon nag la ñuy jëf di ñu ci woo loolee lañ nekk loola la ñu yàlla dimbale ba loola sax ci suñuy xol ban continuer ci kon ñi ngi leen di sant te xam ni liggéey bi Eh, wax dëgg yàlla lépp luñ ci am rek ñi ngi leen ci ñi ngi leen ci sant bu baax a baax may wax nag ci turu daayira ba ma nekk ndax bu dee ci turu yuukee moom sëñ Fallou Diop moo ci wax waaye daayira ba ma nekk ci biir mbooloo ma jiite ko muy wa kaana xaqan xale na nasrul na Kórale ak Brighton ñoom ñëpp maa ngi leen di sant te di leen gën a woowaat ci liggéeyu Muxaddamatul ma te bëgg ñëpp di ci jëf ñu xam ni daayira xet Xidma añu jumaa ji day fàgguteefu sëñ li ñuy wax ne sëñ Euh, dafa mel ne gaal nga def ci say sor waxtu wu jot benn génn benn sor génn ci nag muy añu jumaa ji waaye ñu xam ne nag liggéey bi dëgg dëgg dëgg mooy mu xaddimaatul ma te dafa firi boppam dafa firi boppam kon lépp loo xam ne aju na ci jumaa ji rek dañ cee war a nekk guddi ak bëccëg suba ak ngoon am na sëriñ Abdou Lahad maam Thierno wax na léegi gàmmu benn dëkk a ñëw te gàmmu dëkk yëpp war a ñëw màggal dëkk yëpp war a ñëw koor dëkk yëpp war a ñëw waaye bis yëpp yitam dëkk yëpp danoo war a ñëw saa su nekk di indi di def ci jumaa ji nga xam ni mënees na fee duye ba fees dell jege fi àdduna ak àllaaxira ak saw xeet yëpp waaye nag fi ñuy duye moom moom du fees mukk buntu la boo xamante ne bii buntum gëneel la boo xam ni ki ciy liggéey mën na cee duy ba fees dell waaye fi ngay duy nag moom du fees dell du fees mukk ndaxte liggéey yàlla la te doomu aadama bi li féeg mi ngi noyyi ci kaw suuf rek day liggéeyal yàlla ci lu ko jëriñ tey di ko jëriñ ëllëg kon mbokk yi nga xam ni ñoom laa bàyyi kuréeli ak Brighton maa ngi leen di gën a woowaat ci liggéey bi di wax ni junni murid yii itam nga xam ni moom la ñu woote woon ñu ko seetee daanaka day dëppoog bitse bi sëñ Abdou Lahad Maam Thierno wax muy quatre-vingt et quelques millions kon suñu amoon junni murid di ko renouveler du tax sax day tax sax ñu gën a jëmaat ci kaw ndax daara ji jumaa ji am nay projet yu rëy yoo xam ni nii bu bit tege woon ne ñu jublu nag ca yeneen yi nga xam ni mooy seeni i projet ñoom defe naa sëñ Abdoulaye maam Thierno dañ ci waxtaan mu ma ciy wax yu baree baree bare kon ñu gën a feddaliwaat suñuy laxasaay te junni murit yi ñu gën a fexe ba am ko te di sàkku ci mbooleem koo xam ne laxasu woon nga joxe sa kàddu ci añu jumaa ji ngay fexe ba at mu jot nga saxal jëf ja ndax suñu borom jëf ju sax la bëgg jëf lu mu bari bari bari saxal gi moo ci gën nañu fexee saxal jëf yi ndax at mu nekk nga def ko benn yoon waaye jëllal ko loola ñi ngi ñaan yàlla suñu borom jàppandil ko ñëpp ba kenn du ko mën a jëllal di wax itam nag ne nit ñi am nañ pësteef bëgg nañ cee liggéey waaye Serigne tuubaa rek la nit ki yàllaa koy dimbale ci barkeb sëriñ Touba mu liggéey ci biir jumaa ji waaye Euh, kenn mënu koo fàggul sa bopp ndax njariñ li ci nekk tey ak ëllëg kenn mënu koo xalaas kenn mënu koo xalam kon nag yàlla mooy moom lay soob ci coobareem ci kàttanug sëriñ Touba ci ci dool ci ci barkeb sëriñ Touba mu boole la ci ñi mën a liggéey ci jumaa ji kon suñu amee ñaan gu ñaan dañuy ñaanal ginnaaw ab jullit dañoo wax ne balaa nekkub jullit dëgg lam yéene boppam mu yéene ko mbokkum jullitam kon ñi ngi ñaan yàlla suñu borom ci barkeb sëriñ Touba sëriñ bi na yërëm yal nañu gën a yal nañu gën a dimbale ba xiir xol yépp bañ mën a jariñu ci buntum ngëneel bii muy muxaddimatul xidma damay wax ne jumaa ji kontam wallaahi la asiim wurta manqué milliard sa benn yoon milliard wuru cee manqué benn yoon te dañ caa war a àgg kon nag ñi ngi soññ suñ bopp di soññu ñëpp maa ngi jégalu bu baax di wax nag ne man fi ma ci àgg mooy samay ndono sama doom a nga nee toog su ma fi jógee sëñ Abdou Hakim ndeysaan jërëjëf ku bëri pas-pas la wax di yàlla te am yéene ju rëy rëy ci liggéeyal sëriñ Touba yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ndax eh, képp kum xam ak kum am rek sóob na la nga jaayante sëñ Fallu moomu noonu ay soxnaam ak i doomam ñoom ñëpp moo tax xam naa boo xoolee Angleterre jaayante yi ñu am ci 92 ñoom ñëpp dañuy jaayante jaayanteel am ñoo xam ne sax dañuy jaayante te jaayante ñu fi ñu fi ñu fi nekkut loolu pas-pas la waaw mooy dégg nga nee na am na ku jaayanteel ndeyam ak baayam ci ña nga barsàq kon ñoom ñaar ñii sëñ Fallou Diop sëñ Abdou Hakim Mbaye ak sëñ Baara Ndiaye Baye Fall waaye rawatina jëwrin sëriñ ab Ablaye Dieng Fawseyni wax dëgg yàlla ñu ngi leen di seereel ak cant gu rëy rëy rëy ñu am pas-pas lañ tey taxaw liggéeyu sëriñ Touba bi foofa lool waaw suñ taalaka bi ak support sari Saliou Diop ni nii ko suñ suñ euh, Fallou waxee léegi daaw UK bi yëpp daayira yu ci bari yaakaar naa yi ma tegul sama tànk amul feeñoon na ci liggéey bi nag waaye xëy na ay gilin dañ koy war di di di di fëggale saa su nekk maa kon moo tax léeg dem gi da ci am solo loolu mën danay feeñ ci ci mbir yi ndax euh, Bristol fu mel ne Scotland Manchester Saphir Leicester Leeds Birmingham Crawley Brighton Londres dëkk yooyu yëpp demoon nañ fa soññ leen waaye feeñoon na ci kon ñu ngi leen di gën a soññ di leen gën a tàllal loxo ci liggéey ndax xam ngeen ne bëri na yoo xam ne fii lañ ko wax ñoom dañ cee daal di jaayante ji taxaw ci ndax jaayante añu jumaa ji bi nga xam ne dem nañ euh, Brighton yaakaar naa foofu lañ ko lancé te lu barkeel la da ngeen li ci Cheikh Mamadou Mountakha wax bi ñu fa demee daaw te yooyu yëpp ay tawfeex la daaw bi ñu tuddee fii ambulance bi dañ ne ceel la ñoom daal da ciy fasu ba liggéey bi gis ngeen fi mu toll loolu nag kon ñu ngi leen koy seeral di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaanit ñu nekk Angleterre ñëpp bàq bu tooy bii te suuf si saf-sap nañ ci fexee dugal seenu jiw ndax faaw mu sax te dana barkeel te nit ku nekk na fexe rawale lim am rek balaa euh, wees kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di ñaanal waa Angleterre yëpp.